asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen balu aq di leen bal aq bu baax itam noo ngi ci weer wu tedd di weeru muharam tey séentu itam weer wu tedd ci nun muritati muy weeru safar di weer wi nga xam ne euh, ca la sëñ Tuubaa réew mi liggéeyali boromam ca fukki fan ak juróom-ñett yee ci weeru safar muy nag loo xam ni euh, amul benn bis bu ni toll ci yoonu murit euh, waaye itam ci lislaam ndax dafay bis boo xam ne dafa dafa transcender temps ak espace moy bis bi euh, serigne saliw mi nga xamne mom mo gëna lol dafa wax li ci dafa wax li ci nekk sëriñ abdulahat itam dafa leeral sabab ya serigne fallilu itam mom mi nga xamne ne na bi serigne bi dem waxna lamu gis nun nag nuy ay bokki taalube rek jàpp ne lu ci ne rek war nañ di ko nafar bu baax xam ko ngir yàlla ak sëriñ Tuuba jubluwuñ ci lii itam euh, gotti kenn wala werante ak kenn wala yàq kenn loolu duñ ko def ndax ay murit lañu waaye dafa mel ni euh, kooku ñuy wax njaase dafa wax ay kàddu yoo xam ne juunu na lool jëm ci màggal gi eh, jamono yii nag eh, mel na ni eh, ñu bari ci média yi intéressé na leen nga média Sénégal yi noonu la ñuy def dañuy dañuy jékki-jékki rek samando benn nit su ko defee wax ji bu baree ay njuumte mën na cee tàbbi yoo xam ni du bokk ak dëgg-dëgg la am wala lam jublu woon a wax sëriñ bi bis bi nga xam ne moom la digle ñu di ko màggal mooy bisub demam ba indi euh, na ci nag ñaari dimension muy une dimension spirituelle et une dimension temporelle dimension spirituelle bi loolu Serigne Abdul Ahad da ko leeral ba mu leer naññ ndax Serigne Touba dafa def lixtikaaf ci jàkka yi sëriñ Mbàkke Madina bii ci Daaru Xuddoos ci biir kër gi yàlla dogal mu gis fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba itam mi ngi ci fanweeri at ak juróom-ñeent wala ñeen fukki at yoo xam ne manqué na ñeenti weer te daraja ji nga xam ne moom la ko fa yont yàlla Muhammad andil muy xutbaaniya mënee su cee jot te ñeen fukk yi matul kon loolu rek may gu rëy tawféex gu rëy la ndam lu rëy bu fekkoon ni pali wàlliw yi rekk moo ko tax a jóg foofa maneesu ko weesu waaye boroom tuubaa dafa am nu mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa te gisin wa fajul aajoom dëppoowul ak nam ko bëggee woon bëggoon ko laal bëggoon a saafonte ak moom ndax cofeel gi gi mu ëmbal yonent bi nga xam ne loolu rekk moo ne ci biir xolam loola nak moo tax mu melni ni lam bëgg dëgg amuko ndax garat bi li muy reuy reuy rëy li muy doon doon mbir mu mbir mu neex tax ko jóg mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam rek moko tax serigne touba amul ben daraja jum bu jo xam mom la di wut amul ben daraja bo xamne mom rek moko mom la tegon beut di ko wut dedet serigne bi dafa beug yàlla subhanahu wa taala beug yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci lo xamne amul ben condition bëggim beug yonent bi ak liggéey bi mu koy liggéeyal mom ci bopam neena mom beug gi rek ko tax dahani ila madhi dahani li ikhdami nee na ñaari yëpp nabi xubbu zaatihi bëggim bëgg yonte bi rek moo tax mu di ko di ko way moo tax mu di ko liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam kon bu sañoon day taqoo ak moom faw fu ne mu ne fa loola nag moo tax ca xereñte ga moom boroom Tuuba mu ne kon yonent bi dama bëgg a bokk ci ñii waaye loola taxu ko woon a jóg ndax waye dafa xamne ñooñu mu àndal muy wa ahlu badrin du ñu taggo ak yonent bi mukk sa suné fu yonent bi ne ñanga fa ñom la takol tay ak ëlëk ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamalé ne ko ñi bok ci ñom fatna ndax faw rek nga jaar fiñu jaar pour bok ci ñom te ñoña dañoo joxewoon seen bakkan joxe seen deret joxe seen lépp te loolu mënatu la ne lool yi nag la sëriñ bi jëndee ak nattu yu toll ni tukki géej gii wax yonent bi ne ko ruux gi moom sàkkuma ko bay xam lu mu àttan waaye lépp loo xam ne ruux gi àttan na ko jëmm ji àttan na ko ba muy wax ne jëmm ji attan na ko itam jomam képp la ko waxee ndax booba xamagul liñ koy teg waaye xam na ne bëgg bëgg yonent bi ak am gi mu am jom dëgg moom sëñ tubaa ndax loolu la borom daarul moo ti waxoon sëñ Abdulaat dana ko woon sa bàyyi jom képp la demee ci géej gi ba dellusi si loolu la ko sëriñ tuubaa wax yonent bi xamal ko ne ko itam amu ci lenn xeetu ndimbal loo xam ne des na la ko defal ci engagement bii nga jël te itam li nga ciy wut soo ko amul lépp loo xam ne amoon nga ko di ko ñàkk ndax am na ñu ma gisee woon nii xemmem jataay bii ma amag ak ñii ba lii fekk ko ci mu jéem ko te sottiwul ba mu far yàqule te yow de danga ma bëgg cofeel goo xam ne dafa ràññeeku moo tax bëgguma eh, lu mel noonu dal la lii mooy sababu demub géej gi bi muy dem sëriñ baa ngi dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa ak saaba yi ci tundu jeewal ba fii ma toog di wax masta taqalikoo ak ñoom nattu yi mu dund ci géej gi ak mettit yi ak coono yi ca boppam lépp boobu mu ngi takkoo ak ku tedd ki te itam ba mu koy nettali ci njaareem am koo xam ne day wonk ndax metti gi mu metti ci li muy dégg rek sëñ bi dana ko muslu naa yàlla bu lii amul woon ndax li ma jëlee ci géej gi lool nag la digle ci 1921 ñu di ko màggal lii mooy dimension spirituelle bi dimension temporelle bi mu wax itam boroom Tuubaa tegul système d'éducatif anticolonial déedéet Sëriñ Tuubaa bam jógee daa woote ne képp koo xam ne danga bëgg a dem ci yàlla man sa man borom Tuubaa am naa ndigal muccukaay laa làquwaay laa am na ndigal moom boroom Tuubaa ci yonent bi amee ko ci boroomam ne ku ko topp dinga mucc ndax mat na sëkk wéeruwaay mat na sëkk làquwaay ñoo ñi ko topp nag mu yar leen ci yar boo xam ne dara génnu ci sunna ndax noppi sunna la néew lekk sunna la néew jaxasoo sunna la jàng alquran faratala la la ci ci ñi xam mënee su ñàkk nit ki di jëfandikoo alquran fu mu toll